jërë ngeen jëf ami téléspectateur people 221 yi ñuy suivre ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm ju bari te ko sàkku ci yéen di ñaanal suñu réew mi jàmm waaye di nuyu suñu kilifa diine ak suñu kilifa aada yi di ñaanal ah, umma islam yeeg xalifa yëpp tey nag vraiment ñu déplacé wu ñëw seet si suñu koo xam ni vraiment kenn dootu ko présenté ci sport mais kenn dootu ko présenté ci làmb muy Père Omez tey nag vraiment fajar laa ñëw <laughs> tey moom cinq heures du matin laa yeew toog fii ko xaar vraiment mu nekk sunu père aussi tamit nekk koo xam ne xat na trop mais vraiment fexe na ba nangul émission bi quoi père dama lay bàyyi nga nuyoog téléspectateur people 221 yi lay suivre. Ah euh, guy gi maa ngi lay fay euh, di la ziare di la delloo aussi nuyoo di nuyu askan Sénégal yëpp. Hmm. donc ak le monde sportif. di ñaanal euh, ñi nga xam te ne ñu ngi ci suuf. yàlla xaralal àjjana di ñaan aussi jàmm ci Sénégal di ñaan at bi nga xam te ne mi ngi jeex mu jeex ci jàmm. commencé waat ci ak naataango nga xam te ni euh, àdduna yëpp lañ gis seen bopp. amiin tey nag yaa ngi ma fekk euh, may entraîner sama équipe. Mm-hmm. Euh, terrain golf sud mu tudd golf sport center. dëgg la équipe buy joué championnat régional depuis quatre ans. Mm-hmm. donc moo tax euh, ma nungul la ko ñu ñu waxtaan daal échanger. Mhm. ci ci wàllu sport en particulier mhm. dëgg la fi may njëkkee mooy père ñu gëj la gis gëj la gis nag du ma ne ci sport mais ñu gëj la gis ci làmb mhm. par rapport ak ni nga daan ñëwee ci terrain bi chaque jour mais léegi ñu xaw la gëj a gis ci làmb quoi lu war a loolu. non làmb yi bu pourtant maa ngi ñëw. peut-être euh, damay am ay choix ci may ñëw. ay yu ma dul ñëw parce que ma sama discipline ñu ma xam ñëpp dégg ma ci làmb yi sax dana la jaaxal. parce que du euh, ma ne làmb dama dab parce que fa ma juddoo parc Lambaye di riital bi ak donc je crois muy ëttu euh, maam Gorgui Ndiaye ñoom Serigne Ndiaye ak euh, ñoom Djib Diouf je crois que ñooñu bu déggee ak Moussa Wagué xam nañ ma. parce que foofu laa juddoo fa laa yoroo màggee fa. donc làmb dama ko daan dem di ko seetaani mais mos boo ko ñi ma xam ñëpp nag ci football lañ ma xamee. làmb dama si ñëw en 2008. Mm-hmm. par le biais de mon frère Moussa Diagne. bu koy féliciter encore une fois de plus parce que sama rakk la ñu xam te ne nii ci wàllu sport dama ko coaché. Mhm. coaché goxu commune de Golf Sud ASC fi nekk yëpp. Mhm. pratiquement coaché naa leen ci wàllu football nekkoon militaire nekk à l'ASFA donc nekk football te bi ma gisee ci làmb ji ñu bari ay reetaan loolu defoon. dëgg la parce que xalaatu yoon na sax daa bay dugg ci làmb. mais nag mu boole ji sama papa. yàlla da ko yàlla xare àjjana. amiin amiin donc euh, bi may boole ay tawatin ba mi ngi dund. Mhm. donc euh, ma entraîné leen comment nekk ci écurie Bawol mbooloo ba de 2008. ba 2013. donc loolu cursus bi moo def ci làmb la. Mm-hmm. n'empêche que def na aussi làmb académie. ak euh, TFM euh, au niveau de Ndoukoura. Mm-hmm. donc en 2014 donc seen concert bi maa ko àggale. Mm-hmm. donc ji jóge nag di nekkaat ji au niveau du CNG. nekk fa directeur technique régional. pendant trois ans. équipe de Dakar yóbbu naa ko drapeau chef de l'État en 2018 Kolda jël ko en 2019 ma dem final perte ko en 2021 ma jël quatrième place. Mhm. donc euh, ci laa jógee nag après ma jël un peu de recul gën a accentuer waat euh, ñëwaat ci bi parce que sinon xam nga loo bëgg nekk ci. boo ko bàyyee mu dalee rëcc. dëgg la donc euh, ma ñëwaat sama loxo parce que lii laa xam donc ma jël siwaat ci bàyyi ma ko parce que club bi maa ngi créé en 2012. Mhm. en 2012 laa en ñu commencé gën a formaliser en 2019 ñu commencé jouer championnat. donc ça implique ne maa ci lancé boobu. te ba léegi daal euh, maa ngi ci làmb ji nag ba léegi maa ngi parce que yéen a site Omez TV sport. di si def ay émissions. Euh, bu ñu invité daal la télé ma dem participer aussi à des émissions. su làmb jote aussi ma dem seetaan làmb ji. mais nag euh, ñàkkul ne xëy na fa may toog ci ci kaw média yi ñu ma gis mais chaque fois damay seetaan. bu jeexee ma daal di génn ñibbisi su ma ñibbisee nag ak samay njàngat ak li may xalaat li gis li may dégg ma ci sama émission. Mhm. de jox sa participation. dëgg la mais naka nga gisee làmb ji actuellement nii par rapport ak euh, nga xam ni combat yaa ngi taxaw. ak lamb ji léegi xale yi ni ñu koy jëlee au sérieux ci wàllu mystique bi boo xoolee daanaka mystique la ñu gën a ko léegi bëre bi. bon sport lamb nag xam nga souvent man dama ne xaj na euh, ñuy acteur làmb yi dañu xaw a différence dissocier làmb ak euh, sport. lamb sport lamb ak football ak basket yëpp ñoo yem. mais buñ ko jël nekk loo xam ne c'est spécifique. parce que tey mbër yi ñu ngi daan di bëri MMA ñu ngi ñu ngi ñu ngi dem boxe ñi ñu ngi def yeneen discipline. donc mënuñu ko nekk loo xam ne c'est particulier par rapport ak li nga xam ne tey mooy sport. donc buñ ko bëggee jël mystique. moo ne mooy tax ñuy gaa daan. donc bu kenn entraîné bu écurie am. nañ toog bu làmb jotee. ñu jël seen camion euh, galaaj. waa jokkoo stade ba. dinañ xam ndax ku mën sa morom. donc je crois que entraînement ci la bokk. ñu ñëpp nag ay juddit lañu. même euh, chrétiens yi dañuy lu donc yàlla moo moo boole ci loolu. parce que ku ci juddu dañuy ñaanal alxuraan toqantal la def la say aada donc loolu fi lañ ko fekk donc loolu boo ko seetee mystique la mais loo xamante ne bokk si ñun la mais jël loo xamante ne da nga jiital ne lii moo tax. may daan. wala may jekku sama bopp donc bokk ci sport. donc loolu dama koy déconseiller mbër yi. nañ gën a fonk entraînement yi d' donc je crois que loolu bu ko defee dañ mën a am résultat wax dëgg yàlla ñu xaar ci ñoom. d' accord làmb nag euh, comme ni ma ko ni ma ko laajee euh, sama gis-gis. laa ci am moo tax bi ma toogee ba xoolaat ne. il faut que mu xool la progression de la lutte ak le développement de la lutte ma ci joxe sans participation donc man aussi am na nu ma war a tooge am na nu ma a xoole am na nu ma war a partager ak nit ñi ñàkkul ne gis-gis ak ñi gis-gis nit ñi wuute na mais bëgg naa daal ñu gën ko rendre professionnel mu bàyyi un peu amateurisme parce qu'il y a beaucoup d'amateurisme dans la lutte parce que les gens ne sont pas professionnels mm-hmm. d'accord léegi ma ñëw ci wàllu sport ah mu di mu di mu bi tey un sportif muy muy mbër euh, naka la war a comporter woo parce que danga xool léegi xale yi daanaka sport physiquement bi parataaluñ ko dañuy xëy nekk ci musculation yi dem naan ay affaire ñëw taxaw un sportif ngay bër euh, naka nga war a mer pour nekk athlète. mais moo laa ni xam nga sport dafa am léegi euh, culture générale di sport culture générale du sportif moo di la préparation athlétique généralisée améliorer ses qualités physico-techniques intellectuelles parce que sport bu ñu jël na rek euh, damay jël rek am doole tool am tool mu neex naa dem bëri am na ñoo xam ne làmb dina leen daaw effectivement noonu lañ koy noonu lañ koy gisee. Mhm. mais sport da nga koy dund à partir de à bas âge. Mhm. nekk xale bu ndaw gis nga xale yële ay xale yoo xam te ne cinq ans. Mhm. six ans sept an ñu ngi fubal bi li ñu gën a jënd mag day nekk si ñoom mais làmb nag bindewul noonu làmb da ngay da ngay fooyee d' accord à l' âge de dix sept ans dix huit ans dix neuf ans donc yaa ju vingt cinq ans commencé am ay nit topp la nga dugg ci làmb ji. Mhm. loolu loolu aussi li yàq làmb ci la bokk. Mhm. donc je crois que l'entraînement def sa travail physique bu baax muy endurance muy résistance muy vitesse muy réaction muy muy muy la l'hygiène de vie mooy je dund médical nga topp ko mu dund bu baax médicalement. nga xool ko intellectuellement nga xool ko am un ménager yoo xam te ne lay wax aussi yooyu ni ngay ni ngay doogee mais mbëri dañ naan ils se disent que ñoom professionnel lañu mais en réalité te dënnoo la. Mm-hmm. mais c'est pas professionnel. doo mm-hmm. seetlu ci mbëri mag yi ku amul komba doo entraîné. dëgg la c'est écrit sax taxaw. Mm-hmm. moo gis yenn yi waaye jël ci seen yaram duñ ko attan lu dul dem salle musculation di fa laqatu di entraîné. mais l'entraînement pur mooy nga dem ci écrit ba. entraîné ak un yor la. entraîneur la tàggat la teg la coono bu mu mat c'est c'est pas d'occasion pour dire que Tapha Tine ma ko yoree. 4 heures du matin bu nekk on est ensemble 11 heures mu dem salle musculation le soir 15 heures mu dem à la boxe 17 heures 18 heures ñu enchaîne ñoo contact donc 5 ans yooyu gis nga Tapha Tine ni mu ci mel. Mm-hmm. donc dafa nangu woon liggéey parce que dafa am graphique bu ñu ko teg jox ko benn diagramme de travail mu respecté ko. Mm-hmm. donc mbër noonu la war a dundee. Mm-hmm. moo xam ne lii sa métier la naa ko def mais nag boo ko am nga leneen looy def it te fexeel ba am créneau boo xam ne bu mu yàq si liggéey. nga dem liggéey wala nga dem jàng ji mais bu sport bi jote nga dem entraîné ji. mais mbëri ma yi bu année bi jeexee jeex na ñu ngi seen activité ñu ngi si li ñuy def. mais combat bu jotee gis nañ ñu mel seen yaram bi day yàqu. dëgg la donc voilà. dëgg la entraînement bi dugul entraînement bi baaxul ñu bëgg a ñëw indi public ba pare di jo joxe di CNG te alors que li ñu leen tegal yëpp ay règlement la xam ne dañ ko war respecté seen manager respecté ko seen président écurie respecté ko. d'accord mais loolu day day day xajabal làmb. d'accord ci foofu noonu laay ñëw ci combat bi nga xam ne mooy am euh, suba ah, mu di Boy Niang ak Tapha Tine euh, combat boobu noonu. Boy ñaar ak Balla Gaye Boy Niang Boy Niang Balla Gaye bala maa ñëw ci biir. Boy Niang Tapha na Tapha Tine jàll na ko. waaw Boy Niang Boy Niang boobu naka nga gisee mbëri seen communication ci signature yi. waaw moo laa expliqué xam nga euh, en matière de de communication et de marketing de sponsoring loolu mooy defar taaral làmb. Mm-hmm. mais euh, li ñuy def ci euh, face to yi ou bien open press man je crois que war nañu ko mën a xoolal benn formule. Mhm. parce que euh, au niveau des face à face dañu war a bàyyi le plus de temps mbëri ñu wax li ñu war a wax li ñu war a entraîner méthodologie yi ñu mën a préparer yooyu yëpp ñu mën ko expliquer. wax communication waxante ni dina tax sponsor bi war a mën a ñëw. wax communication boo xam ne nii ñu leen di déglu wala jël séance si war a mën a ñëw si fekk si leen mais euh, lañ may wax déedéet maa ngi gërëm diw maa ngi gërëm diw maa ngi sant diw. parce que non loolu c'est pas le sport. loolu du du image bu baax ci sport waxal li nga xam te ne tey mooy jumtukaay yi nga xam te ne nii tey moo la ñu war a ñu def ba ñu progressé. Mm. pour que làmb jëm kanam. Mm. donc loolu mooy professionnel doo gis mukk un footballeur di wax je remercie euh, monsieur tel monsieur tel monsieur tel. Mm. ou bien basketteur non monsieur doo ko gis dañuy wax exactement de la préparation li nga xam te ne moom la ñu def la vie du club. mais loolu écurie la war a dundee. mais maa ngi gërëm politicien bi maa ngi gërëm ministre bële maa ngi gërëm parce que drapeau bi de maa ngi gërëm sama commune non c'est pas ça. d'accord. orateur yi nga xam te ne mooy ñi nga xam te ne ñoo leen di dañu war a jël ay techniciens ñu leen di poser ay questions de combat de lutte et sport mais di leen poser ay questions yoo xam te ni c'est un peu agressif. dem ci mbër bi ne ko mbër bi nee na nangam. di wëlbatiku dellu ci ka nga waxoon ne mbër bi nee ñu yaakaar ne communication day jaay làmb déedéet day yàq làmb. agressivité bi foofu la parce que wax bu bu jógee. téye ko doon ko mën mu rafet ñu kodd ko yë wodd ko bu génnee mu neex dégg. d'accord ma ñëw ci communication Boy Niang ñu gis ni Boy Niang combat bi daf ci communiquer noo xam ne dafa ñeme Balla Gaye de trop dafa dem ba dugg ci gardam quoi. non c'est-à-dire style la bu mu utilisé parce que Balla bi muy relancé wu dafa fekkoon ay magam di génn ci làmb ji. Mhm. muy Yékini Tyson Moustapha Guèye tout ça. Mhm. mais ci comment wax loo xam ne ci nit ñi dañ jàpp ne loolu. moo nekkoon yoon. Mhm. mais yoon la pour déstabiliser nit bi. Mhm. donc euh, booy Niang aussi ñàkkul nañ ko conseil et puis effectivement am nañu ko wax sax ne lii bal li mu de Balla Gaye mhm. premier face à face bi. loolu la Balla Gaye doon def ay ay ay ay mag ay magam. mais gis nga bi au fur et à mesure ñuy dem discours di changé. parce que ba ku si nekk li ñu war a mooy jox cër sa morom. parce que euh, li may wax face a face. open press yooyu yëpp dañu war a ma joxe ay message ay lancer message yoo te ni day yokku dayoo làmb mhm. day yokk viwu làmb day yokk visibilité làmb mhm. mais di wax yi wax joo xam te nii mhm. day c'est irrespectueux euh, loolu jekkul ci ñaari athlète donc loolu nekk na loo xam te nii psychologiquement dañ koy utiliser pour pour pour euh, solo sa sa sa morom xaaral wax nangam xaaral ma tudd waajuram. Mhm. xaaral ma tudd lu xam ne nii. Mhm. dina mer parce que jour combat bi mu de loolu nag souvent day tax consignes yi nga xam ne dañ koy am ci làmb ji. Mhm. boo ñëwee ci làmb ji day changé. dañuy dañuy xaar combat mu mag bu rey combat bi ñoo soof. souvent boo loo ci gis. dañuy wax moom la ñuy jëf. donc ku si nekk nag sa staff sa moo tax moo tax euh, ñoom dañu war am nit ñoo xam ne nii. les ay coach mental la waxkat booy dem. communication bi nii la ko war a raxe nii nga war a bañ Tapha Tine na laa def ak moom ah. Tapha Tine waaw dañu toog di waxtaan mosoo gis Tapha Tine débordé mukk ci ci communication. Mhm. mosul am. ñi mhm. ko man bari wuñu mhm. ku mel ne euh, Bombardier il communique très bien. parce que loo loo yëkkati dalee tempé dalee. dalee tempéré. donc noonu bariwul ci am na ci ay xale yi aussi. yoo xam te maa ngi leen di déglu am nañu ay wax yoo xam te ne wax yu am solo la. léegi boo xoolee sax ba ci jàkkaarloo. dafa changé non dafa changé parce que mature maga néew mag da koy woy ne tey war na changé. Mhm. communication mhm. parce que kilifa la léegi. Mhm. parce que boo déggee kilifa da ngay nungu ne kat xaar ma ma dal. parce que boo nekkee xale. sa yaram day tàng. da nga yaakaar ne loo wax noonu la. loo wax agressif bi duñ mais loo gën a jënd mag dina changé. booy ñaax ci am na moo wax ne il communique très la bien. Mm. parce que intellectuel la man donc am na xam na moyen de communication. Uh-huh. donc am na yoo xam ne nag ñi koy accompagner. bi nga si bi dugal. dëgg la ne ku si nekk sa xel. li ñu wax ak yow li nga wax sa morom. ma ñëw ci état de forme ñaari mbër yi ah. dama njëkkee ci ci ci Boy Niang combat bi souvent dañuy wax Boy Niang heure bu duggee ci ay poids lourd parce que yaakaar naa daje na ak yow muy tafatin heure bu duggee ci ay poids lourd am jafe-jafe dama ñëw ci état de forme mbëri. non bi may bi ma tafatin boobu cinq combats laa ko yor. waaw muy contre euh, Abdou Diouf euh, Elton Bombardier ak euh, Balla Gaye. après ci la arrêté quoi. d' accord ma ñëw ci état de forme yi bon donc loolu li may wax nii ne nii damay gisee progressivement par exemple Boy Niang essayé na dugg deux fois de suite ci ci ci poids lourd yi. Mhm. mu am échec. Mhm. style bi muy bëree xam nekk dafa am concept. Mhm. lamb muy sport yëpp dafa am concept am principe organisation bi xam te ne yow moom war a mhm. soit moom organisation offensive bi nga xam te ne dañ koy xaar ci moom moom gënalu ko day def euh, euh, euh, animation défensive ba pare di jouer par des pistons ay ay déplacement ay garder ay distance. Mhm. kooku stratégie la. Mhm. ku mel ne Balla Gaye moom day ñëw attaqué la donc animation offensive la am. donc défensivement am ñàkkul ne am na ay argument donc yooyu yëpp ay jàngat loo xam ne ni man def naa ko si ñoom. mais nag loolu li moo di euh, état de forme yi ni ñuy mm-hmm. parce que entraînement dafa am euh, chronogramme ni nga entraîné dafa war a am teg ko ci ay charte teg ay yoon tant que defoo benn graphique de travail. Mm-hmm. ci forme yi nga xam te ne ni nga ko war a liggéey ci mm-hmm. entraînement. préparation généralisée. ak entraînement yoo xam te ne c'est par rapport ak discipline bi ngay def. loolu seen coach yi moo leen ñoo leen ko war a jox. donc donc sama gis-gis daal am lu ma lu ma lu ma gis man man nga wax mais mën ma wax ci média dëgg la parce que man en tant que technicien di ma wax loo xam ne tey dina dina dina laal euh, kenn ci ñoom wala mooy euh, indi force kenn wala faiblesse kenn hmm. wala ay menaces am hmm. ñoom seen staff ils sont chargés de faire ça parce que ils ont des entraîneurs parce que seen entraîneur seen bopp ñoo la war a ci ay conditions de compétition. dëgg la ñu xoolee Balla Gaye mu mel ni sax combat bi souvent da daan am combat génn xam nga dem préparer ji ko mais bi ñu gisee combat bi état de forme bi mu ci indi mu mel ni euh, Balla Gaye am na ay engagement yoo xam ne jël na ko ci combat yi parce que génnul benn yoon fii la ko préparé. waaw parce que Balla dafa am défaite contre euh, contre Eumeu Sène. deux de suite. Mhm. après ci la ko kii amaat défaite ak euh, comment ça Bombardier. Mhm. mu ne day gàddaay dafa dafa ruwaat les gens ils ont vu que il a changé. Mhm. parce que période bi mu nekkoon doon bëree euh, après Tapha mhm. on a vu ba un Balla Gaye changé. Mhm. donc euh, morphologiquement. parce que contre Yékini contre contre kii comment ça contre Tyson. contre Tyson. on a vu que Balla mi ngi commencé changé mais bi mu commencé xam ne ne am na benn culture bu mu def def benn euh, li ñuy wax. critique individuelle critique personnel objectif par rapport ak moom ak par rapport ak ses son comportement il a changé dem INSEPS dem liggéeyaat bi ñu ñëwee gis jàpp Modou Lo gis ni mu ko def jàpp Gris Bordeaux gis ni mu ko def donc il a changé maintenant mu toogaat ay temps ak Covid bi sal ça entraîné wu mooy li ma wax rek entraîné wu am jël bombardier donc ak âge bi day changé parce que li ma leen jaral aussi xëy na àggu ci ñoom mu defarwaat mm-hmm. am ci défaite contre bombardier mm-hmm. ñu ko mais mu dem defarwaat ñàkkul kat kat combat yooyu mu jël il faut que graphe bi mu yor cheminement bi mu war a def ak échelonnement bi mu war a def a mettre à chaque mu ne ci benn étape. Mm-hmm. war na ko a passé te bi mu ko defee contre bi deuxième étape bi contre Bombardier contre euh, Gris Bordeaux. Mm-hmm. gis nañ am a changement. contre Boy Niang donc day gën a progresser. Mm-hmm. donc graphique le temps que yaa ngi di avancer yaa ngi gën a yëg. donc buy dem contre Eumeu Sène day 100 pour cent. donc mais fi nii je vois un Balla Gaye à 80 pour cent. de préparation. je vois un Boy Niang plus jeune plus frais et c'est le combat de Boy Niang c'est pas le combat de Balla il faut que nit aussi bañ a bàyyi xel ne. surtout Balla plus rien à prouver. jël na il est il est mais plafond nag boo fa àggee toog foofu mooy jafeñ. Mhm. loolu souvent mooy discipline yëpp ba dem ba dem Ronaldo. léegi il a atteint le plafond mais pour mu pour mu yéegaat. Mhm. c' est impossible. Mhm. mais un Messi gis nga après coupe du monde bi pour mu yéegaat encore il faut avoir un an deux ans. Mhm. donc di discipline moo demee noonu ak âge. donc Balla foofu la toll. donc l' expérience bi nga xam na tey moom la moom la emmagasiné. moom la war a mën a utiliser. Boy Niang il est jeune. c'est à lui maintenant de, de faire son combat. Mm -hmm. Parce que ce n'est plus le combat de Balla Gaye. Mm -hmm. Parce que je ne le qu'il tombe qu'il gagne. Comme Balla plus rien à mhm. C'est à Boy de dire maintenant mën naa soxla pour yéeg pour dem. Mhm. ci kaw moom moo war a def le combat. Mhm. à sa manière dem ay prise de décision. parce que lam prise de décision la. boo amul kenn kenn dem décision. Ah, la lay passivité et avertissement boobu yor sañ disqualifié la ñoom ñaar ñëpp. Mhm. ou bien ñu machine mhm. donc euh, état de forme bi noonu laa ko gisee. Mhm. noonu laa ko jàngee et stratégiquement aussi la ñu doon ma ñëw ci li nga xam ne moo di wàllu physique ñoom ñaar naka nga gisee seen wàllu physique. non le physique euh, pour évaluer ko souvent da ngeen mooy wax physique dafa am lu mu laaj. Euh, l' dafa am noo koy ba am ay nombre de pulsations de cent vingt cinq à cent trente cinq donc loolu travail cardio la. Hmm. boo demee ci forme de résistance yi di nga dem à cent quatre vingt pulsations à deux cent pulsations. Hmm. te loolu pour nga évaluer ko mbër bi il faut nga takk sa loxo. Hmm. mais li ci bët il faut nga gé ko ni may fa fóolal ñii. na xam kii état de physique bi fii la toll. kii di matal na. kii matalawul nga fexe ba ñëpp tollo mais lii sport individuel la. donc ñi leen mën a yor ñoo mën a xam seen état physique parce que le cardio da ci bokk. cardio. mooy xol bi ni muy too boo defee action contre action récupération bi ci la bokk parce que la résistance récupération daf ci bokk la résistance intensité daf ci bokk mhm. la résistance volume daf ci bokk mhm. donc loolu lépp boo ko bëggee <laughs> li ma la expliqué ci assurance. Mhm. c' est un peu technique. Mhm. bon c' est technique loolu nag il faut que ñi nga xam ne nii xam nañ sport dégg nañ sport li xam nañ ko. Mhm. je crois xam nañ fi may fi may waxee daal. d' accord ma ñëw ci wàllu bëri ñu gis ni ñoom ñaar seen bëri dafa xaw am différent parce que boo xoolee Boy Niang souvent dafa nekkoon défenseur boo xam ne day taxaw xaar kii nekk attaquant ñoom ñaar ci wàllu bëri naka nga ma naka nga ban jàngat nga ma ci mën a jox. non xam nga euh, bëri mooy li ñuy wax technique. la technique de lutte. technique de de frappe. te ñu loolu dafa am se protéger. Mhm. mooy yow nga fexe ba yow bu ñu la àgg fenn yi. Mhm. nga fexe yow ba am jumtukaay sa wala bopp xam ne foo bëgg àgg nit ak àgg ko fa. Mhm. nga fexe ba yow foo ñu la jàpp it yow nga génn ci loolu. dëgg la donc loolu mooy technique. donc xam nañ dañoo ne kii moo technique ba technique technique dafa bari technique de contrôle dafa am. technique de dégagement dafa am. technique de se déplacer dafa am. technique de de de de am na. donc passage dessus song ji attaque ñëkk yi par un pied nga yaakaar fa nga jëm nga changé ko wër ko ndomba war nga jar nga dal ko wala yeneen leneen donc dafa bëri ay forme mhm. voilà ba su ma bëri nag mais ci sama xalaat daal ci bu gàtt un bon lutteur caractère euh, la war parce que boo xoolee ñu bari bëri bi ba Balla Gaye la ñu gën a. foofu la expliqué rek am na yooyu noonu man li ma général. Mhm. cadre général lamba laa mais du jël ki di ko jox lii. Mhm. di ko wàññil kële déedéet parce que ku nekk ma ne. technique de frappe dafa am. Mm-hmm. door dafa am technique. parce que ñoom ñaar aussi ci dóor bi tamit. gis ñu ni seen i combat bari na bagaar. dóor dafa am solo mais boo amul noo mën a dóoree. Mm-hmm. mën nga dóor gaañu. Mm-hmm. comme mën nga dóor comme ka ngay dóor aussi di ko dal. impact bi nga xam ne tey moo war a dal comme ni Gris Bordeaux di dóore. mu dal euh, euh, Modou Lo di ko dóore. wuute na tey ak góor gi yu muy dóore. waaw na. voilà donc yooyu yëpp ay technique la. donc euh, forme boobu daal laa la mën a wax les formes de lutte les formes de corps de en général mais détail bi bu ma ko naree détail fii te di fi jóg. d' accord mais ñoom ñaar ci wàllu bëre kan moo ëpp avantage. ñoom ñaar ñëpp am seen avantage la mais li ma la sànq rek li ma la sànq boo ko tënkee rek tënk bi limal limal ci cinq ba juróom ba juróom-benn koo ci am rek. avantage. Mm-hmm. tey boo ñaan boo ko doon conseillé ci combat. li ma ci kenn. <laughs> kenn laajul conseil am nañu staff. en tant qu'amateur. non dama ñu conseil kenn am nañu yéen staff man je suis euh, un support un technicien. Mhm. damay am sama observation pour xool. Mhm. après ma analyser sama synthèse. mais combat bi yaakaaroo ci mu ñëw nekk match nul parce que ñaari mbëri ni ñu waxee nii. dem na ba nekk na sama une minute wax naa ko sànq en principe. bu fekkente ne stratégiquement. Mhm. dañ def euh, combat boo xamante ne à longue distance xam nga dafa am. distance rapprochée. Mm-hmm. la moyenne distance et la longue distance. Mm-hmm. ñu amuñu différence taxawaay parce que ñun ñëpp dañuy siggi. Mm-hmm. garde haute garde moyenne garde basse. xam ay loolu lépp ci forme de ci la. bu fekkee ne nii ku si dafa garde distance boo xam te ne nii bëggoo jàppante sa dañu bëri jëm ñu def ko. je crois doon combat boo xam ne match di ci am. parce que ñaari bokkal bu ñu jàppante dina am. ñu dëgg bu bëri amee nag. c'est sûr que kenn na daan kenn na daanu. Hmm. mais li ma ko fa di wax rek en tout benn B2 dina daan beneen B2 hmm. benn B2 <laughs> Balla Gaye 2 Boy Niang <laughs> benn b uh-huh. dina daan benn b dina daanu <laughs> donc xaw ma kan lay doon uh-huh. donc il faut daan. Hmm. parce que kii Balla la kii Boy. ku ci nekk nga seen sant yi nag après ñoom ñooy seet kan kan mooy kan moo gën a kii sant. dëgg la fi may jeexalee mooy Boy Niang eh. Boy Niang combat bi fan la ko fan fan la mën a yóbbu après. non fi nga ko mën a yóbbu mooy mu bëree waat euh, ak un Lac bëree waat ak un du bëree ak. Euh, euh, Eumeu Sène mhm. du bëree ak Ama Baldé. Mhm. Modou Lo même il a un encore ba tey. Mhm. en queue de poisson jeexagul. Bombardier pratiquement li ko dese baratul. donc mën na bëri rek. mën na ba rëg rëg mën na joxe devant Sa Thiès mhm. donc guy gi bëri nag moom mhm. donc na ñàkk cercle bu ndaw làmb dafa tol foo nii ne nii tey waru ñu ne dafa yóbbu fenn déedéet mhm. amateurs yi ñoo soxla ay combat nañu respecté combat yooyu te bàyyi seen ay cent pour cent deux cent pour cent yi ñuy def uh-huh. loolu dafa yàq làmb bi loolu fàtte naa na làmb trop cent uh-huh. parce que ay conflit lay indi conflit dul jeex kenn mënul xam net de dawaay bi. Hmm. da ngay dëgg ñu sax doo dem entraînement boo demee entraînement ñu indi la yeneen détail hmm. boo demul ñu wax la ci yow. Hmm. donc donc intérêt cent pour cent deux cent pour cent. ma gisuma ko. d' accord ah, mu ngi noonu moo nekkoon suñu père nekkoon suñu invité tey euh, baax nag parce que vraiment. Euh, sama entraînement waaw waaw entraînement bi dañ ko bàyyi. mais du ñàkk équipe bi aussi tamit doo xam koy wax pour gars yi ko bàyyi xel. waaw non c' est un régional bu nekk commune Golf Sud. Mhm. quatre ans ñu ngi joué championnat régional. Mhm. donc on demande à l' ensemble des autorités. de la commune du département du Sénégal ñoo jàppale le club Golf Sport Center. Mhm. on est là donc euh, sur la coupole de de la commune de Golf. Mhm. donc engagement mooy lan formation encadrement des jeunes. kese la bon loolu loolu moo tax ñu créé le club boo xam ne tey ñaan yàlla mu dem première division. Mhm. ba joué en championnat euh, euh, intercontinental. mais mais mën nañu la xaaraat suba suba ci làmb nga yor benn athlète. Mm. wala bàyyi nga. non non la bon sama âge ma vraiment. mooy topp ci eh, jimbar di ko entraîner. d'accord ma di xalaatuma ko sax xalaatuma ko. d'accord euh, mais nag conseil yaa ngi fi. d'accord parce que maa ngi conseil suma site Omez TV sport. Mm-hmm. maa ngi ciy animé. Mm-hmm. maa ngi ciy waxtaanu làmb. Mm-hmm. ku ci dugg di nga gis ne li wax ci làmb. avantage ñëpp la. donc li ma ciy manqué aussi bëgg naa mu muy ñëw retour. ñooy wax kat war a waxee nii. waaw war a defee nii. wala fàtte nga nangam wala nii nga war a toogee wala nii nga war a mais làmb moom bàyyi ma parce que ñun ñëpp ay eh, sportif lañu. léeg maa ngi ci basket bi damay def randonnée pédestre damay def travail fitness donc discipline yëpp maa ngi ci. mais quant à dugaat ci làmb. Hmm. Euh, nekk ci écurie. Hmm. Euh, jël ma xaw a euh, jafe tuuti dal